kaana nekkoon na saxbaanu saxbaan min xutaba it dawlati di bokk ci xutbakati nguur ga al amawiyati ngay ko jóg banu umaya banu umayata bañ tolloo ci di falu amoon na ku tudd saxbaan ci yooyu jamono ku mënoon a xutba ràññikoon lool ci biir nguurug banu umaya ci mën a xutba daxala tàbbi na alxummaalu liggéeykat yi almasnaha isin ba rubaaxa mbir mu ñuy ay ñeent ñeent wa maxmasa ak mbir mu ñuy ay juróom juróom ñiy liggéey ci atelier bi wala ci isin bi bi ñu dugg dañoo def par ay ñeent ñeent mbaa par ay juróom juróom laata naalu doo am xobuwaa ak ñeewu fil xayaati ci dund gi wala tazkaru te doo tuufu di zikra ci ak fàttaliku xasanat ngu di aji rafet ba andaxaa ci gannaaw dund gi illaa ji xayril amali ndare ci ngën ji jëf wa amalil xayri ak jëfu yiw soo bëggee booy dund am daraja ju kawe kawe boo fi jógee itam ñu lay fàttaliku kenn du la fàtte da ngay def lu baax te sax ca di ko def bañ a bàyyi loolu daal boo ko defee da nga am tur ci bi ngay dund boo fi bàyyi ko itam deesu la fàtte at tamrin attaani bàyyi leeralal almamnooxa lañu tere mina sarfi ci soppi wa xayrahu ak lu dul almamnooxu mina sarfi minal asmaayi ci lisim yi al aatiyati maha zikril asbaabi su mada topp nga teg xamsatan juróom min haa ci ñoom fii jumalin mufiidatin day bëgg indi ay baati baat yu wuute yoo xam ne am na ci yu doon maalaañ sarif am na ci yoo xam ne doonuñu ko mu bëgg na nga ràññeel ya ko doon ak ya ko doonut te boo nee kii doon na ko nga wax la tax mu doon ko ba noppee na nga tànn juróomi baat bu ci nekk nga dugal ko ci biir wax bu daanu chaabaanu chaabaan ramsis ramsis moom dafa nekk xalam ba noppi nag doon ak làkk nga xam cosaanowul ci làngu arab wala moo ko tax a doon mamnuux min as-sarf bustaanul ab sardin moom bokkul ci mamnu mina sarf yasribu yasrib moo doon turu madina njëkk yonent bi di fa dem moom dafay xalam bu nuru fial dafay xalam bu nuru fial ndax dafa nuru fii lu mu dari moom ajmalu moo gën a rafet moom dafa nekk afalu tafdil mudaru mudar moom mook omar ja nga weesu woon ñoo bokk ibrahim dafa doon xalam bu nekk ak làkk boole ci xorofun ay sàmbar xorof da lay nuru mudar waaye bokkuñu xorof moom day jamu tafsir rek waaye du xalam fii mu nekk bokkul ci maalañ sarif bétroo garaat moom maalañ sarif la ndax dafa nekk ak làkk te xalam boole ci xoryaan aj rafle kanaa isu ay église jabaanun aj ragal chaqraaw aji jàkkeer ridwaan moom ba cubloo malaaka mi tudd ridwaan mu daal nekk xalam waaye bu dee ridwaan ngërëm rek moom masar kese lay doon nga xam ne boo jubloo malaaka mi mu bokk ci malaan sarif fekkee da nga jublu masar kese ridwaan ngërëm rek mu daal di nangoo soppiku maanaam du nekkati malaan sarif daal xaraatiisu ay kayit moom day siixatu mun taxal jumoo moo kanaay su bari moo weesu moo tax chaque waa njàmbat inshaaun ak sos su daasu ay juróom benn par juróom benn التمرين الثالث ضع تقل الأسماء الآتية في جمل مفيدة بحيث تكون مرة مجرورة بالفتحة ومرة مجرورة بالكسرة baat yi bëgg dik dafa bëgg bu ci ne nga dugal ko ci biir wax bu daanu te bu ci ne nga indi ko bërëb boo xam ne bu fa taxawee boo koy jar fataa nga koy jare ak foo xam ne bu fa taxawee boo koy jar kasra lay jare ñoom ñëpp nag dañoo bokk ci maalaay sarif xam ne af saxu ka gën a rafet làmmiñ manaziru ay xoolukaay baydaaw aji weex ahadiisu ay adis wala ay waxtaan zam aan aji mar yi ko ci xool am na lu ko boole ci mamnuux min sarf lay tax nag nga jare ko fataa mooy boo ko dugalee ci jumla ji te daarawut daafut lay tax na nga jari kasara mooy boo ko dugalee jumla nga taara ko mbaa nga daafal ko nga xool nag at tamrin arabi def ko jaali si ba ci at tamrin fil i'rab mooy at tamrin alxaamis mu jëkk a joxe na mu zajun sallaytu jullee naa bi masajida ci ay jàkka sallay ji kese rek fixilul maadin la mabniin xala sukkooni wattaaw damirun la faaxilun la xanaa boo nee sallaytu sallay day nekk fixilul maadin tujji nekk faaxil doom damir ñibbi naa ko ci damm bi masaajida albaawu xarfu jarin la wa masaajida majrurun bil bàyyi wa xalaamatu jarrihi alfatxatu niyaabatan anil kasrati li àndahoo ngir naka moom mamnuuhun min as-sarf maanaam masaajida dañ ko jarak baa mandargam jaram mooy fataa gi ndax bi masaajida ngay jàng xam ne fataa gi mooy wecci kasra ga nga xamoon ci cosaan ci luy jar li nekk moom nu wax mi ne saraf yi moo tax ñu jare ko fataa axri bil jumalal aatiyata zahabtu demoon naa ilaa xolwaana jëm xolwaan ataftu ñëwante naa xalaa ismaila ci ismail rudda na nga delloo attaxiyata nuyoo ba bi axsana ci bu gën rafet min haa ca moom tamtaasu dana ràññi ko misru misru bi turbatin ci suuf xadraa suy aji naat wala suy aji nëtëx an naatu al xaqiqiyu wa sababiyu an naatu li mooy naat al xaqiqiyu bay ko dëgg-dëgg wa sababiyu ak bay sababiyu bay ko ju sabab daal mu njëkkee al amsilatu jaa a dikk na ar rajulu waaja al muhaddabu jari ju ñu sellal mbaa jari ju ñu yar boo xoolee ci fi jàkkaarloo moom ñu indi fa jaa a dikk na ar rajulu waaja al muhaddabu kadi ku ñu yar axoohu mbokkam wala kadi ku ñu sellal axoohu mbokkam bi ci topp xadarat teew na as sayidatu sang bu jigéen ba alxaaqilatu bi aji xellu ñu bind ci kanamam xadarat teew na asayidatu sang bu jigéen ba alxaaqilatu ba aji xellu ummuha yaayam xam ne yaayam moo xellu waaye moom ci boppam xelluwut rakibtu war naa alxisaana faswa aljamila wa di aji rafet ñu bind ci kanamam rakibtu war naa alxisaana faswa aljamila wa di aji rafet sarjuhoo tegam nga nga xam ne bi néewuñu fas yi ci boppam moo rafet dañ ne tegg ci boppam tegu fasoo moo rafet aqamtu sax naa filman si ci kër ga alfas yi ngay aji yaatu feeñu ne aqamtu sax naa filman si ci kër ga alfas yi ngay aji yaatu fi naa uhu ëttam ba fu njëkk fi dane nekkoon naa ca kër gu yaatu ga sax ca fi jàkkaarloo moom ne nekkoon naa ci kër ga nga xam ne ëttam moo yaatu waaye néewuñu jëmi kër ga ci boppam moo yaatu ëpp ëttam lañ ne moo yaatu albaas naa la mu danañu xamee mii maa ci la nga xam ne taqaddama jiitu woon na la naa ñenn fil ju si ca xaaj ba al awali bi aji jëkk ni amal kalimaat naka baat yi te mooy al muhazzabu wal xaaqilatu ak wal jamil ak wal fasih fii am silatul xismi ci misaali xaaj ba al awali bi aji jëkk tusamma def na leen tudde nu xootan ay naat wa tawaabiha ak way topp li anna kulla waaxidatin ngir naka kenn ku ne min haa ci ñoom te dullu dana tegtale xalaa sifatin ci aw melo fil ismi wow nekk na ci lisim ba allësi ba nga xam ne qablaha nekk na ci ak njëkkam wa tatbaaxoo tem koy topp fii ihraabihi ci ihraabam rafan ci rafaa wa nasban ak ci ak nasab wa jaran ak ci jar nee na boo delloo ci xaaj bi njëkk fii ci téere bi maanaam aljus awal ci annahul waadi boo ci delloo da nga gis ne lu mel ni al muhazzabu topp ci arrajulu wala al xaaqidatu topp ci assayidatu wala al jamila topp ci al xisaana wala al fasiixi topp ci fil mansili lu mel noonu boo delloo ci xaaj ba nga njëkk jàng ci an xulwaadi na nga gis ne baat mel noonu dañ koy tuddee naat naat bi firi aw melo wane ne baat bi daal day wax baat ba ko jëkk na mel maanaam day leeral baat ba ko jiitu nu mel niki al muhazzabu day leeral mbirum ar rajulu al xaaxilatu di leeral mbirum as sayidatu al jamila di leeral mbirum al xisaana al fasih di leeral mbirum al mansil di ko jiitu wala moo tax ñu leen tuddee noxootan ay naat yi tax ñuy wax tawaa bi xanaa mooy ku ci ne boo ko dee xool ci àtt ihraab bi lam topp rek lu mu def lay def su loolu rafaayee mel ni ar rajulu al muhaddabu dafa rafaa bi asayidatu rafaayee al xaaxilat noonu dafa rafaa al xisaana ba mu nasabee al jamila dafa nasab fil mansili bi mu jaree al fasihi dafa jar wa naalam dana nu xam wa naalamu aydan ba tey anal asmaa naka lisim ya al madkorata e dañu tudd xablaa seemu njëkk waxiyete ñoom moo di arrajulu wa sayidatu wal xisaanu wal mansilu yu sama def na tudde kulun kenn ku ne min xaa ci ñoom man xootan lu ñu melal aw mat booxan wala lu ñu topp ndegam baat bi nga xam ne mooy wane melow ba ko jiitu woon te di ko topp itam ci ixraab bi da nga koy tuddee naat mbaa taabia kon baat ba ko jiitu woon nga xam ne moom la ñuy wax aw melowam te di ko topp itam ci lu mu def ki ko topp def ko ne moom baat boobu da nga koy woowee kon man xoot ku ñu melal wala mat boo lu ñu topp ki bismillahi rahmaani rahim boo ne arrahmaani day wax ni allahi mel ba noppi itam topp ko ci ni nga ne allahi noonu nga waxee arrahmaani kon na ngay jàpp ne allahi jooju mën nga koo tudde manoot mbaa mat boo manoot nag mooy gën a wóor ndax am na yeneen yoo xam ne ku ci ne mat boo la ku ñu topp la ndax lay dellu ci moom da koy topp kon kon man xoot moom mooy turwa ràññikoom wana siidu danan dolli xunaa fii fa naqoolu dañuy wax ne inal kalimaat naka baat ya allati ya nga xam ne sàmmay naaxaa tudde woon nan leen fil xismi ca xaaj ba al awali bi aj jëkk noxootan ay naat tu sàmmaa def na leen tuddee ay doon ba tey fil xismi ci xaaj bi ataani bi aj ñaareel noxootan ay naat walakin waaye alaa yoo jëdu ndax deful fekk farqun genn teqale bay na nu ootil xismi diggante naati xaaj ba al awali ba jëkk wa nu ootil xismi ak naati xaaj ba ataani ba ñaareel balaa axakay inna hunaaka naka nekk na foofee farxan ak teqale waadixan guy aji leer fil maanaa ci maxnaama fal muhaddabu al muhaddab masalan ci misaal fil xismi ci xaaj ba al awali bi aj jëkk sifatun aw melo la fil xaqiqati ci dëgg-dëgg lil ismi ñeel lisim ba al mazkuri ba dañu tudd xabluhoo ci ak jëkkam waxute moom ar rajulu moo di waaja li anna al muttasifa ngir naka aji melo waaja bitta sii bi ca sellal ga mbaa yar ga xaqiqatan ci dëgg-dëgg huwa moom ar rajulu mooy waaja wali saalit ngir loolu yu sama def na tudde xaatu naatu bi le naxat naata naxat xaqiqiyan bi ko jóg dëgg-dëgg nee na boo xoolee ci càmmoñ da nga gis ne baat yi ñëwoon fee ci ndeyjoor nekk ay naat ba tey bi ñëwee fii càmmoñ ay naat lañ ba tey waaye nag xoolaatal ba xam ndax am na genn wuute ci boo xoolee baat yooyu nañ meloon ci ligne bi ci ndeyjoor ak niñ mel ci liñ bi càmmoñ ndax am na genn wuute mu tontu ne waaw am na wuute gu leer a leer ci maxnaam yi goo xam ne boo ko seetloo daal koy gaaw a xam loolu mel na ne ndax boo xoolee ci ligne bi ci ndeyjoor baat bi nga xam ne moo nekk naat melowoo muy wane ci dëgg-dëgg baat ba mu topp di naat ci moom moo ko melowoo ci misaal al muhazzabu kañ sellal mbaa kañ yar arajul ji ko jiit tam topp ko doon naat ci moom waa ji ci boppam moo amee yar bi boo seetloo alxaqilatu mu topp ci asayidatu fi mu toll nii asayida ci boppam ci jëm boppam moom moo amee xel mi mooy yeewu moo xellu al jamila boo ko seetloo alxisaane ci ko jiitu moo melowoo taar bi nga xam ne jëmmi taar bi alxisaan fas yi moo ko melowoo alfasihi ji boo ko seetloo almansir kër ga kër gi ci boppam moo yaatu noonu ngay gis moom ci ligne bi ci ndeyjoor nga xam ne baat bi nekk naat di wane aw melo baat ba mu topp di ko melal moo melowoo melowoo moom ci jëmmi boppam moo ko melowoo waaw nag moo tax foofu dañ koy tuddee al naat al xaqiqi yi naati xaqiqi yi naat dëgg-dëgg noonu lañ koy tuddee amma fil xismi daal ci xaaj ba attaani bi aj ñaareel fa lay sa tahzibu déet sellal ga mbaa yar ga fil xaqiqati ci dëgg-dëgg fil xaqiqati sifatan mu di aw melo li rajuli ñeel waaja wa innama huwa naka moom sifatun aw melo la li maa ñeel la nga xam ne ba adahoo nekk na ci gannaawam wax wate moom al axu moo di al axu mbokk ma xayra annahoo ndare naka moom lamaakaana ba nekkee lil axi di ñeel mbokk irtibaatun ak takku maanaam ak jàppandu bi rajuli ca waaja jaasa kon jaadu na an naqoo la nu wax xan sifatul axi ci melow mbokk ma ne innahaa naka moom sifatun aw melo la li rajuli ñeel waaja wa min ajli saalik ngir loolu yu sama def na tuddee lafzul muhazzabi baatub al muhazzab fil xismi ci xaaj bi attaani bi aj ñaareel naata naat xayra xaqiqiyin dog du ko jug dëgg-dëgg aw naatan wala naat sababiyan du ko jug sabab te wa kazalika naka noonee yuqaalu la dee fi wax fii baqiyatil amsilati ci la des ca misaal ya dane boo xoolee ci càmmoñ nag moom baat ba ñu wax ne naat la ci baat ba ko jiitu ca dëgg-dëgg baat ba ko jiitu melowoowul melowa leneen lu amee ak joteeg moom moo melowoo melowa li ki boo nee jaa ar rajulu al muhaddabu axoohu ar rajulu ci boppam du moo amee yar bi mbaa sell gi déedéet mbokkam ci boppam moom waa ji mbokkum waa ji moo amee yar baak sell ga boo nee xadarati sayidatu al xaaqilatu ummuha foofu madam bi ci boppam muy sang bu jigéen bi du mooy yeewu moo xellu déedéet yaayam kay lañ ne yaayam moo xellu mooy yeewu bi ci topp itam dañ ne fas wi ci boppam ak tegam moo rafet nga xam ne teg ga ci boppam moo rafet waaye du fas wi ci boppam moo rafet bi ci topp it ëttub kër gi moo yaatu waaye du kër gi ci boppam moo yaatu nga xam ne bo kon takk-takk bi mooy boo dee xool ci càmmoñ daal lañ wax ne mooy man xoot ma maanaam moom la ñuy delloo naat ji ci moom ci dëgg-dëgg du moo melowoo melowa dafa am kay lu jàppanteeg moom am ak moom rapport melowoo melowa fu mel ni foofu dañuy wooye naat ja naatan gayra xaqiqiyin wala naatan sababiyan ñu far ko teqale sax ci qaayida bi nga dégg al qaidatu an naatu naat nawaani ñaari façon la xaqiqiyun ko jug dëgg-dëgg wa sababiyun ak ko jug sabab fal xaqiqiyu naat bay ko jug dëgg-dëgg maa mooy ba nga xam ne dal la tegtale na xalaa sifatin ci aw melo fii nafsi matbooxihi wow nekk na ci jëmmi la muy topp muy la muy naat wa sababi yi sabab yi nag maa mooy la nga xam ne dal la tegtale na xalaa sifatin ci aw melo fismin melowu nekk ci lisim lëxoo bopp ñeel na ko irtibaatun ak takku bil mat booy ca la ñu topp mbaa la ñu naat teqale baa ngoog naat day ñaari façon dafa am naat boo xam ne lañ wax ne ca la dellu ba di ko topp ci lu mu def mu def ko ci rafaa mbaa nasab mbaa jara loole mu topp ca dëgg-dëgg moo melowoo melowa ngay wax ni ki bismillahi rahmaani rahim bi ne arrahmaani rahim yépp naat la ci laahi allaahi mu yàlla jooju moo amee melow yërmande wi ci jëmmi boppam moo amee melowe li mel noonu moo tudd an naatu al xaqiqiyu an naatu asabab yu nag mooy boo xoolee baat bi ne mooy naat melowoo muy wax la mu dellu doon naat ci moom ba di ko topp ci ihraab moomut melowa leneen lu am ak jàppanteeg moom moom moom melo wa maanaam lu am rapport ak baat ba muy naat moom moom melo wa waaye baat bi moom naat ji ci boppam moom melowut melo wa te loolu leer na la ci bi nga ko xoolee ci ligne bi ci féete ci càmmooñ ndax fee da nga ne waa ji ci boppam du moo yaru mbokkam moo yaru fee da nga ne ci misaal du kër gi ci boppam moo yaatu ëttub kër gaa yaatu fee da nga ne du fas wi ci boppam moo rafet waaye teguk fas waa rafet lu mel noonu mooy tudd an naatu as sababiyu an naatu as sababiyu day am lu rafaa ca kanamam benn muy faaxilam wala muy naibam loolu mën naa nekk lisimi zahir mën naa nekk damir deki almuhadabu ba mu doonee naat ci arrajulu axoo bi ci kanamam naayib la ci moom ndax almuhadab daa nekk isma fool alxaqilatu ummuha ummu fi mu toll faaxil la ci alxaqilatu ndax alxaqilatu da ismu faaxil moo tax moom faaxil lay am ummu ji doon faaxil ci alxaqilatu ba tey aljamila sarjuhoo sarju faaxil la ci aljamila ba tey alfasiixi finaawuhoo finaaw faaxil la ci alfasiixi daa am yoo xam ne duñu ay fixal waaye dañuy jëf ni fixal di jëfe moom la mu tam ma tudde woon baabul asmaai alxaamilati xamalal fiali boo fa delloo nga ismu wax ismu faaxil na muy jëfe ak isma fool waaye daal naati sabab yi moom mën nga ne day rafaa ci kanamam loo xam ne benn muy faaxil wala muy naayib loola nag mën naa nekk lisimi zahir mën naa nekk itam damir mutabaqatu naati dëppoonteeg naat lil man ooti ñeel la muy naat baat bi nekk naat war gi war a dëppoog la muy melal di naat ca moom al am silatu lay njëkk indi li féete ndeyjoor moom li naati al xaqiqi yi bu dee naati xaqiqi yi moo féete ndeyjoor foofu la ñuy waxee na muy dëppoog man xootam hazali mansilun ak kër la bay yëqun guy aj xat tasal laqatu ñàpp naa shajaratan garab xalizatan guy aji tal maanaam garab gu rëy rek mooy xaliza jalastu toog naa fi suraadiqi ca tànt ba suraadiq day fi aw sàkket waaye bokk na ci ay préw itam tànt alfaaxiri bay aji taaru wala bay aji foor xaataani yile yaar suurataani ñaari foto la jamilataani aji rafet istaraytu jënd naa bisaa tayni ñaari tappi sharqi yey ni ko ju penku maanaam jënd naa ñaari tappi ñoo xam ne waa penku yi ñoo koy defar xasartu yem naa mooy wi fi di fa kastal waaye mooy yem rek bi taa'iratayni ci ñaari njanaaw mu xar yi bay ni aji tumuranke maanaam daal yéeme néewaana nga gis yu ni mel dox naa ba yem ci yaari njanaaw yoo xam ne daal nekkuñu yu bare bari ku jóg rek gis leen xawulaay ñi banaatun ay xale yu jigéen lañu xaaqilaatun ñu di way xellu xaashartu àndoonte na maag ixwaanan ay mbokk moo siri nañu di way woomal ashfaqtu ñewante naa xala sibiyati ca gone ya al mu'dimina ña di way ñàkk boo xoolee càmmoñ nag moom li naati as-sababi bu dee naat sababi yu ñu lay mel haza lii mansilun kër la dayiqun guy aj xat finaauhu atam ba tasallaqtu ñàpp naa shajaratan garab ghalizan guy aji tal jisuha dàttam ba jalastu toog naa fi sudaadixi ci tànt ba alfaaxirati bay aji foor ara ikuhu ay kanapeem kanap xaataani yile yaar suurataani ñaari foto la jamilun yu di aji rafet itaarahuma seen ñaari kaadar kaadar yi nga xam ñoo wër foto yi ñoo rafet waaye néew ñi tey foto yi ñoo rafet istaraytu jënd naa bisaa pay ni ñaari tappi charqiyan yi ko jóg penku naq fihuma seen boyaade boyaade yi tëpp yi moom lañ askan jëmale penk waaye ñëw jëmmi taw bi ci boppam moom penk lañ ko defaree xasartu yam naa bépp béppa i ray ni ci yaari njanaaw xaribin yu aji yéemu mbaa yu aji tumranke shakluhuma seen forma yem naa ci yaari njanaaw yoo xam ne nañu mel moom moo yéemu néewaan nga gis mela woowu ñu mel ko xawulaay ñii banaatun ay xale yu jigéen lañu xaaqi ilatun yu di aji xellu ummahaatuhunna seeni yaay xaashartu àndoon dina maag ixwaanan ay mbokk moo siran ñu di aji woomal aabaahum seeni baay ashfaqtu ñëwante naa xala sibiyati ci gone ya al mu'dimi ña di aji ñàkk ahloohum seen ñoñ seen waa kër bu ñëw ci albaas alkalimaatu baat yi al axiratu allati yi nga xam ne ishtamalat làmboona xaleyaa ci ñoom am silatu xismi misaali xaaj ba al aymani bay ndeyjoor kulluhaa mboole seen noxootun ay naat lañu xaqiiqiyat ñu ko jug dëgg-dëgg li ànd na kulla waahidat ngir naka benn bu ne min haa ci ñoom te dullu dana tegtale xalaa sifatin ci aw melo fi nafsi maat boo xihaa wow nekk na ci jëmmi la mu topp wa haadihi kalimaat yi lay baat xayluhaa seen jëmmi bopp fil xismi ca xaaj ba al aysari bay càmmooñ nootun ay naat lañu sababiyat ñu ko jub sabab li annaha ngir naka ñoom te dullu danañu tegtale xalaa sifatin ci aw melo fii maa woo xam daa nekk ci loo xam ne laxoo ñeel na ko irtibaatun ak takku bil mat booxi ca lañu topp mu ne boo xoolee liñ bi féete ndeyjoor ku ci ne baat ba ci mujj naat la moom te it day naati xaqiiqi yu boole ci ndax melowoo mi tegtale boo ko dee seet la muy naat moo ko melowoo nga xam ne ngir nga taayi wal bëti rek boo ne jamilataani naat la mu topp suurataani ci ndeyjoor ñaari photo yi ñoo melowoo rafetaay bi ba tey charq yey ni topp bisaa pay ni charq yey ni mooy naat bi te boo dee seet melo yi muy joxe bisaa pay ni ji moo ko moom ndax ñaari topp yi lay wax ne ñoom lañ liggéey penku foo xoole ci ndeyjoor rek moom baat ba ci mujj naat la te xaqiqi yu la ndax melowoo muy wane baat ba muy dellu ñu wax ne mooy man xoot ma moo ko melowoo baat yooyu nag dañuy ñëwaat ci càmmooñ ba noppi nag doon fa naati sabab yi ndax bañ ñëwaatee càmmooñ ca dëgg-dëgg kañ wax ne mooy borom naat ji du moo melowoo melowa leneen loo xam ne am naa ak moom rapport am nañu jote leneen loolee moo melowoo melowa nekk ngir nga tàyyiwul bëti fa nga waxee ci ndeyjoor ne haataani suurataani jamilataani na nga wax fee ne haataani suurataani jamilun itarahuma ci càmmoñ da nga ne lii de ñaari photo la yoo xam ne seen ñaari kaadar ñoo rafet nga xam ne woo ñaari photo yi tey ñoo rafet ni nga waxoon ci ndeyjoor da nga ne ñaari photo yi seen ñaari kaadar mooy photo bu ne photo bu ci ne ab kaadaram moo rafet nga boole ñaari kaadar yi ñu rafet kon baat yi nekkoon ci ndeyjoor ñëw nañ ci càmmoñ waaye nag ca ndeyjoor dañ faa doon naatu xaqiiq yi fi càmmoñ nekk naatu sabab yi wa ida taamal naa ndeem seetantal nanu haadihi lkalimaati yi lay baat fi lqismay ni ci ñaari xaaj ya wajat naaxaa nu fekk leen tumaasilu ñu yemoonteeg mat boo xaxaa la ñu topp waxute moom al ismu mooy lisim ba ëllësi ba nga xam ne qablaxaa nekk na seenu njëkk fi rafihi ci rafaam nga wa nasbihi ak nasabam nga wa jarhi ak jaram nga wa tumaatiluhoo te ñi yemoonteeg moom ay don ba tey fii taarifihi ci ak mahrifaalam wa tankiirihi akuk nakkiraalam mu ne nag baat yi nga wax ne naat lañu boo ko dee xool ci ndeyjoor ak boo ko dee xool càmmooñ ñoo yemoo képp kuñ ci wax ne naat la topp na man xoot ma ci juróom yi moom topp na ko ci bu rafaayee mu rafaa bu nasabee mu nasab bu jaree mu jar ñu koy tuddee ihraab yat topp na ko itam ci li ñuy wax tur yaar tur yaar mooy maarifa ak nakira loolu boo xoolee muy càmmoñ muy ndeyjoor ñoo ci yemoo loole naat la rek topp na man xoot ma ci bu rafaaye mu rafaa bu nasabee mu nasab bu jaree bu jaree mu jar bu doonee maarifa mu doon maarifa bu doonee nakkire mu doon nakkire loolu moom ñëpp ñoo ci bokk ci topp gi ci misaal suurataan nakkire la gis nga jamilataan doon daan nakkira foofu ci ndeyjoor la boo xoolee fee itam suurataan yi nakkira la mooy man xoot mi jamilun mooy naat ci moom nakkira la ba tey waaye boo xoolee ci suuf ashfaqtu ala sibyati al mu'dimina asibiyati maarifa la ci taara gi waaye gis nga al mu'dimina topp na ko ci taara gi doon maarifa ne moom soo seetloo itam ashfaqtu ala sibiyati al mu'dimi ahluhum al mu'dimi topp na asibiyati ci maarifa gi naka ki nekk maarifa ki nekk maarifa wa iza ta'ammalnaha ndem seetantal nanu leen fil qismi ca xaaj ba al aymani bay ndey joor waxdahoo moom rek xay su xiyee fa nga xamee ne ñoom no ootun ay naat lañu xaqiqiyat ni ko jug dëgg-dëgg wajat naa xaa nu fekk leen fawqamaa ci kaw li nga xam ne taqaddama jiitu na